dama la jox bu gàtt rek séeréer séeréer bi gisoo jékki-jékki ni mu ne sama mbokk séeréer dafa jékki-jékki mu ne ma Habib gis nga ma ne mu ne ma furi yëpp ya, ba xar moo ma ci dàqal nee na furi ba xar moo ko ci dàqal dafa toog ak benn chinois benn waaju sopp comme man ne chinois bi barki wax mën ko bind wala ma tekki la li nga bëgg wax ko la ko billaay wóor na loo wax rek wala loo kii rek dinaa ko bind dinaa ko tekki waa dina ko defal wax ma lu muy signifier benn gu benn gumb la woon mooy gumb yooyu rek nga xam ne ndeysaan yàlla dafa jël seen bët te warul woon jël seen bët gumb bi dóor jin bu wow nii xam toog rek xentu benn parfum muy farfal jigéen mu daal mu daal jigéen bi daal dugg ndeysaan nekk jigéen yoo xam ne dañu ñeme dangal bu bi jóg affaire yi mm, gumb bi daal ñëw rek xentu parfum ne ci caaya doo wax ci caaya xale bi di dem rek xale bi ne tekk taxaw rek xam waas xam saa waay ma doo wax ci canja ma ne ci canja ñëw ci loxo yi tànk yi ci canja Nobody feeling. Hey, wait, you done your way.